فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله رب لا إله إلا الله falooy faal yërmandey faal doley biir ak biteey falaa ilaaha illallaah falaa ilaaha illallaah ni mari jaalooy faal law ma assalaamu wa rahmatullaahi wa ngi nuyu bokk ñi teewlu yëpp ci turu jëwriñ Cheikh rafal ji tok di serigne amdou Fall moom serigne Modou Mbenda di jotali ay nuyo akub ziar bu bayiko ci mom jëm ci jawriñam di Cheikh Modou Muntaxa mu ñaan yalla sunu borom guddal aw fanam te wëral ay cërem ba naal yi nga xamne ne am na ko si toolub sëñ Tuubaa bi mu def ci lu kawé ndortam ànd ko talibi yépp muy jotali ay nuyo akub ziar mu jëm ci mbollem njabotuk serigne touba gi fu nu mëna nek rek mu leen di siyaare di len ñaanal yalla suñu borom teenu seen fan wi ak seen wér ba yéene ji ñu am ci liggéey sëñ tuba bi ñu ànd koog seen mu ndaxa def ci lu kawé seen ndort ah, di jotil nak nuyo bu mag ak bu sel mu jëm ci njabatu bopam di njabatu mam Cheikh ibrahim Fall nga xamni tay yalla dogal na mu nekk ci seen kanam di len jotali ay tiant di len jotali ay ngeureum ci li nu wessu lepp ak fi nu tollu di serel ñepp ni mom day sant na len bu baakha a baax ci taxaway bi nga xamne ne am nañ ko ci mbollem ndigal yo xamne ne mi ngi bayiko jumsi fi mom jëm ci ñom jabatuk yo Faal gi te ndigal yooya di bayiko ci Serigne Touba Cheikh Modou Mountakha di agsi fi mom muy seere ne ndigal lu fi mësa jaar rek mom taxawu nañ ko ba sering bi am ci la nga xamne ne gënal kon mi ngi len di sant ci lolu baax te di len ñaanal sa borom dool leen taxawu kattanal len ba li serigne bi bëgg sa suné ñu jekk ko te man ko def nako serigne sëriñ bi bëggee sëriñ bi eh, waxon nak ñu dellu ci wat tay ji jotaay bi liko waral moy jotaay fàttali rek ak jataayu soñé gannaaw ba nga xamné kenn ku ne xamna ni liggéey bé sa mbàkke muy liggéeyub euh ñu wax stade ba sa mbàkke te yalla dogal moy ndigal la lu bayiko wat ci Cheikh Modou ñëw si jëwriñam ji di sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda muy ndigal lu jëm si liggéey boobee nga xam ne santoon na ko ko mu nekkoon sa ànd kook njabootu Seera Fall gépp muy liggéey bee sa Mbàkke foofu nuy wax nu daa wax stade ba sëriñ bi tàmbali fa woon liggéey boobee euh, ànd ko murit yëpp ñu dem ba mu àgg foo xamante ni fii euh, la taxoon nu taxaw ay ndigal la yoo xam ne ñoo egsiwaatoon sëriñ bi waxoon nu taxawandi ba matal ndigal yooyee soog a dellu siwaat si ndigal li mu mel ni nag sëriñ bi jotaan na ndigal si ñu delluwaat sa liggéey boobee yàlla sëriñ bi nag tànnal ko bis muy talaatay ëllëg ji bu dellusee eh, di dajeeg juróom ñaari fan si weeru tubaab muy weeru eh, novembre waaye tollook ñaar fukki fan ak ñaar si weeru rakki gàmmu eh, muy weeru wolof sëriñ bi wax ne mu ngi woo njabootuk Cheikh Rafal gépp waye di wo talibé yépp ñu wat sa liggéey bobé fasiyéné la fa nekk ag nu agal ko ba mel na nga xamné non la ko sëriñ bi bëggé ñu jébal ko Cheikh Modou tambali wat la nga xamné ne sa dolli ko ndax sëriñ bi dafa melni da ni la fa né la nu def nu agalé ko moy tabax ya fa né ak mbar ya ñu agalé raax ba defal ko ay buntu defal ko ay fenêtre ak i karolé ko peinture ko installé la fay courant ak la fay plomberie ak lépp loo xam ne jumtuwaay la bu mu war a am mu jublu sa loolee ba loolam àgg su ko defee ñu soog a sémbaat yeneen sémb yi nga xam ne moo des ci plan bi nga xam ne mooy plan ba nu jébbaloon kon sëriñ bi wax na ne loolu liggéey la boo xam ne liggéey bu rëy la waaye nag ñun li nu fi indi bàyyi nu fi mooy jëfe ndigali sëñ Tuubaa yi rek kon nu xamne ndigal ñewat na señ bi nak dafa bëgg ñun ñepp ñu jaaju jaajuwaat bu baaxa baax tambalé ko nak ci buntu kër maam Cheikh Rafal yépp nga xamne ne kenn ku ci nekk señ bi yonne waat na ci yow ndaw ñi mu bind ay bataxal yonne leen te xamne liggéey bi noko ko te noo ko ba mu ag na mel na wara mel ñu débbal ko señ Tuubaa Cheikh Modou Muntaxa señ bi di leen soññiwaat ñom ñepp ci liggéey bi si lepp lo xamne moy tax liggéey bi mëna ag ci si bu gatt ndax kenn ku ne xam na ni mbaye Fall moom amul noppalu dallu rek la ñuy def waxtu wu nu bàyyi ci lenn ndigal rek leneen a ngi taxaw di nu xaar kon sëriñ bi bëgg ñun ñëpp ñu àndandoo defaat ci yitte ju mat sëkk waaye tàmbalee ko nag si ñi nga xam ne ñoom lañ ko teg seen loxo di njabatuk Cheikh Rafal gi ñoom it ñu ànd ko ak ñi nga xam ne euh, sëriñ bi dalena na boole ak ñoom xam naa la sa jiitu mooy ñi ñuy tudde cheikh yi mboolem koo xamante ne ab cheikh nga te sa yaakaar nekk si buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ baa ngi lay soñ soññi si anam boo ko manee rek si wet goo ko manee rek sëriñ baa ngi lay soññi nga dellu si ànd ak sa njaboot ànd ak sa doole ak sa alal ak sa man-man ngeen dellu si nu fas yéene ànd liggéey boobu yi ba mu mel nu mucc ayib noo xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee sëriñ bi mu ngi soññ mbooleem taalibe yi fu nu nekk si biir réew mi waaye mbooleem taalibe fu nu nekk si bitim réew sëriñ baa ngi soññ ñëpp ñi si biir réew mi sëriñ baa ngi leen di soññ si teewaay bi ak jëf ji ndax liggéey bi kat jëf a koy def mooy tax li sëriñ bi bëgg mu am ko kon sëriñ baa ngi leen ci soññ bu nu mënee boole teew ak di jëf loolu sëriñ baa ngi leen ci soññ te di ñaan boroom borom kattanal leen ba nu mane ko noonee ña nga xam ne ñoo féete bitim réew nañu xam ne liggéey bi am nañ ci wàll wu rëy rëy ndax sunu borom mm, sëriñ bi da leen a toxalal ay tool rek sàkkal leen ay tool mu féete bitim réew mu mel ne kon dafay mel ne foofee fa la ñuy sàkkoo li ñuy liggéeyale sëriñ bi fii sëriñ bi di wax ni mi ngi wax mbooleem daayira bu nekk bitim réew muy Europe muy Amérique muy asi muy Afrique fu fi mën a doon muy sëriñ baa ngi sàkku dayre bu fa ne te yaakaar sëriñ seex Ibrahima Fall sëriñ baa ngi lay woo si ñu daldi dajale ay addiya dajale ab liggéey boo xamante ne bii mooy tax ba lii nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg a songu mu mën a àgg si diir bu gàtt ñu mën a jàll si leneen ndigal kon fu fi ab dayra nekk rek si bitim réew fu fi ab daayira nekk si Afrique ak bitim réew sëriñ baa ngi leen di soññi te di nekk seenu seen seenu seenub liggéey ñu mën koo tabal si liggéey bi ak yeneen yi si topp yëpp ñu ma liggéey bi mën a àgg ni ko sëriñ bi bëggee sëriñ baa ngi soññi mboolem ku di soppe mboolem koo xamante ni ab murit nga sa yaakaar génnut sëñ Tuubaa ak fofu yaakaari Serigne Touba Serigne bangi la ci wo soppe yi nga xamne ay soppe lañ Serigne bangi lay woon woo si liggéey bi ndax ñoo dess ginnaw ben yoon ndigal lu sa jib rek and nañ ci ak Serigne bi ba Serigne bi am ko nam ko bëggee kon nak wote bangi nonu Serigne Amdi Fall mu Serigne Modou Mbenda yalla suñu borom yagal ak dundam te wëral ko mo bëgg labiré mourid yépp mo bëgg labiré taalibe yépp mo bëgg labiré julit ñëpp moo bëgg a képp koo xam ne bëgg nga lu baax te am yaakaar si ne jëfal sëñ tubaa wala jëfal Cheikh Rafal mën na la koo may mu lay woo si liggéey bii bëgg nag ñu tàbbi si ndax dafa bëgg liggéey ba doon lu mucc ayib loo xamante ne bii dina méngoo ak jëf ju Cheikh Rafal di liggéey sëñ Touba. Ah, am na nag ay jumtuwaay yoo xam ne teg nañ ko yoo xam ne képp koo xam ne kii sa teewaay jàppandiwut addi joo si dugal dana agsi fii fi sëriñ bi numéro loolu am na numéro téléphone boo xam ne numéro bi am na li ñuy wax Wave am na li ñuy wax Orange Money kenn ku ne xam na ne yaar yooyu lépp loo si dugal muy biir réew mi ak bitim réew loolee dana egsi fi sëriñ bi euh, li si dolliku numéro boobu mooy 77 473 31 31 77 473 31 31 numéro boobu mi ngi fii fi sëriñ bi képp ku si woote di nga jot ndawul sëriñ bi lépp loo si war a tabbal boo ko si tabbalee incha allahu dana tege si loxol sëriñ bi. li si dolli ko am na compte boo xamante ni bii ma nga sa CBAO ngir ñi nga xam ne loolu moo leen gën a jàppandi compte bi. 036 20 34 89 40 155 loolu mooy compte bi képp koo xamante ni kii euh, mën ngaa. Eh, eh, jàppandi na si yow nga mën tabal li ngay tabal ci compte bobu inshallah allahu dana exi fi nga xamne fi moy ci serigne bi ma bamtu compte bi 036 20 34 89 40 155 compte la bo xamne ñing ko domicilier banque bi ñuy wax CBAO kon liggéey baa ngi noonu sëriñ baa ngi ñaanal ñëpp jàmm sëriñ baa ngi séentu mboolem taalibe yi nu xam ne fii nu toll daal yitte ji mooy ñu àggale liggéey bee sa Mbàkke jébbal ko Cheikh Modou Mountakha su ko defee jubluwaat nag si yeneen liggéey yeneen ndigal yi si topp yëpp nag sëriñ bi wax na ni des na ko jottaliwaat incha allahu lu jëm si wàllu liggéey bii nuy taxawu muy liggéeyu war mooy Touba euh, taxawaay yi ñu ci war a am yëpp sëriñ bi wax na ne dina joxe na ndigal am na ndigal yu mu si joxe incha allahu ndigal yooyu daanu ko jottali murit yëpp ñu déggandoo ko kon nu waaj incha allah talaatay ëllëg ji bu dellusee tombeek juróom-ñett ñaari fan si weeru novembre di ñaar fukki fan ak ñaar si weeru rakki gàmmu sëriñ baa ngi séentu ñëpp sa mbakke Bawol yàlla nañ ci egg ak jàmm te daje see ngërëmul sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu